ma ne mbégte la am ñew tay fi ci RTS té RTS ku mu neex ku mu naqadi joyau la nga bëgg ko nga bañ ko ña nekk ci privé bi yépp tey bu ñu sañoon daagu ci biir RTS ndax jot nañ ci xam dara laata ñu ñuy fal ak ba ñuy yegg si fii sax di jël passation de service defe naa ne CV yi bari na yi ma ci jot ci diggante kon ak ñu wane seen bëgg ñëw RTS li ma gëm mooy RTS warul mën a jéggaani dara lépp lu ñu soxla ci secteur boo dem RTS am na ko ba doyal kon may wax ne dama ñëw ci biir RTS talal samay loxo wax naa ko léegi ñëpp ña demoon nañu dellu si kër gi seen kër la mu neex leen mu naqadi leen seen kër la comme seen kër la nag dama jàpp ne yéen yéen a ko mën a defar ba mu na boy damay wax ne mission biñ ma sas kilifa yi ma ñi ma ko sas bañ ma toogee waxtaan ak ñoom dañ na ma dawalal ci kaw lan nag ci kaw dëgg ci kaw jub te dama faral di wax ne bu nekkee ne du ci kaw dëgg walla jub liggéeyal askanu Sénégal ban gis seen bopp seen ci télé bi yàlla moo fi toog ndaxte dama foog du ndam ngay liggéeyee RTS ñuy natt télé yi RTS du ci jël premier du ndam ci kenn kuy liggéey ci RTS dama foog ne sax la nga ne RTS lay liggéeyee ñu ne sa télé bi moo ci gën ci télé yi lépp lu askan bi di yaakaar maa ngi koy gis ci télé bi te mën na nekk du mën na nekk sax lu war a nekk la te dama ko gëm lu tax ma gëm ko journaliste yu gën a xarañ ñi ngi ci biir RTS jàngee ci école yu gën a xarañ génn fa ñu ràññee on se connaît xamante nañ suñu biir xamante nañ suñu biir wax ji mënta mën na ñàkk bari li ci am solo mooy journaliste yooyu ñeme nag retrousser les manches ne danañ àndandoo liggéey ni ñu war a liggéeyee li ñu sas parce que service public la dërëmu sénégalais yi ñoo ciy dugg kon sénégalais bu ne war na cee mën a gis boppam gis ci boppam nag ci anam bu ne dañoo warloo ànd ak gouvernement jàppale ko bu baax suñu sas la mission la wane ay programme am wane ay projet yi mu nas jëmele ko ci askan bi waaye dañoo warloo timit keneen bu amee gis-gis ñu jox ko kàddu mu wax ko muy deux termes yuy ànd muy ban ak ban liberté ak responsabilité loolu dama koy bëgg a wax fii liggéey bi tàmbali na ci man bëgg naa tamit mu tàmbali ñëpp